koy bëgg ba ci jinne dañ koo bëgg waaw farloo di nga xam ne nit la koo xamante ni ku mel ni moom ci terrain politique bu Sénégal mosu fee am. ah bon kon lu ñu phénomène. est-ce que amuñ sax lu gën a garaaw phénomène. mosu imaam loolu rëy na de. non mais xam nga Moustapha mhm. euh, yàlla def na li li ma gën a jàng ci àddina mooy mouvement yi ci àddina bi leader yi. nan la ñuy formé woo nan la ñuy yëkkatikoo nag nan lañuy ñuy daanoo daanoo yaa ngi dégg Ousmane fi ko yàlla may loo xam ne sénégalais mosu ko am sénégalais mosu ko wax mooy def na impôt et domaine fukki at ak juróom mosuma jël fukki dërëm yu ma moomul su fekkee ne mos naa koo def yal na ma yàlla tàbbal safara kan moo ñemee wax loolu ci politiciens yi léegi yow wax jooju noonu nitu diine bu ko déggee xam nga lan lay def ci moom dafa yéeme. Mm-hmm. waaw maanaam mbiram dafa yéeme parcours bi moo doy waar. nit ku juba ngi lay wax. waaw nit ku juba ngi te li doy waar mooy njub googu dafa am ñu jëflante ak moom seede ko. Mm-hmm. ñu jëflante ak moom seede ko man am na ku ma nettali ne ci bureau dafa bokk ak moom bureau di liggéey. léeg-léeg da ko daan abbu téléphone abbu téléphone te bureau bi am na téléphone waa ji di ko abal affaire bi mu def ko mu defaat ko affaire bi jaaxal ko waa ji na ko waa sëñ bi mais biir téléphone yi pour kii la ci pour pour pour pour pour liggéey bi pour kii la pour téléphone la téléphone yaa ngi fi bu la neex jëlal ngay àbb téléphone yi mu ne ko non téléphone yi téléphone bureau bi la téléphone liggéey bi la. mais man lii ma lay wax sama soxla bopp la waaw sama soxla bopp nag man maa war a wut sama crédit bopp daal di ko ciy dox yow lii fan nga ko gis ci àddina bi. tout cas raar na te ñi ko wax ñoom ñi ko jëflanteeg moom ñoo ko seede wallahi waaye léegi yow boo dee nitu diine ñu nettali la yu mel nii sa xel di dem ci Seydina Umar ibnul Xattaab mm-hmm. ñu nettali lu mel nii sa xel di dem ci Seydina Ali ibn Abi Talib ñu nettali la mel ni sa xel di dem ci Omar ibn Abdul Aziz ñu nettali la mel ni sa xel di dem ci Souleymane Thierno Souleymane Baal mais faw nga am benn sympathie ak moom faw nga respecté ko faw nga xam ni lii lu raar la du par parloo xam nga dina li muy tere mooy par parloo maanaam bu nekkee ci dëgg bu nekkul ci dëgg yëpp moom laa àndal mais ay fee yoo gis jàngat ko. loolu jël position ci loolu loolu diine loolu la ñu sant. Mm-hmm. moom mm-hmm. waaw mais mais loolu tey jii mu am benn dossier bu ñëw dalu ci kawam loolu taxul tamit mu am ñenn ñu am sikki sàkk wala ñu dellu ginnaaw ci ci ci cofeel bi ñu am ci moom loolu tamit du lu doy. non xam nga dossier dossier boobu du dëgg. mooy dossier aji saar bi. ay caaxaan la. Mm-hmm. ay fola li lay wan ne du dëgg ay caaxaan la ay fola ñi ko contre. bu buñ ko bëggee naqaral wala bu ñu bëggee naqaral ñi mu àndal il faut procès am il faut procès am yow bu procès am lu si sa yoon. gis nañ ko bi bi bi élection yi jàll ba léegi ñuy wax. waaw lu si sa yoon. Mhm. c'est-à-dire que xale bu jigéen bi ñoom bu doon seen doom la bu doon seen doom la duñ ko jël di ko exploiter nañu rus yàlla rus histoire. Mhm. xool seen njaboot yu jigéen yi fan la ñuy mujj ëllëg xale bi politiqué nañ ko xale bi fowee nañ ko. xale bi xeexee nañ ko xale bi toroxal nañ ko yàq nañ ko te ñoom ñëpp am nañu ay doom bu doon seen doom duñ ko def wallahi bu doon seen doom duñu ko def. li ñu jàpp mooy dañ koy défendre ñoom loolu lañ jàpp seen bopp la ñuy défendre seen bopp la ñuy défendre affaire politique lañ ko bëgg a def di ko xeexee.